bañ tey ñoo bañ ëllëg loolu ñu bokkoon bëgguñu ko tey fii bëgguñu ko fii ëllëg bañ ñu projet bi wante fi ñu ko bëgg a def bëgguñu ko muy gudd a gàttal loolu la xale yee d'accord ne bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg ñun nag suñu kudur jàmm la ràcc wante foofu nga xam ne moom la gaal yi yaakaar ak fi ñuy wax foofu géej gi ronse woon naka ba dindi bëgg a daaneel kee bi ngoonde buñ ne foofu la ñuy bëgg indi foofu sottiwul am na place yeneen yoo xam ne mën nañ ko fa def wante ñun foofu ñu ko bëgg bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg te dafa am ñoo xam ne dañ ne leen wax ne ay farine de poisson ñu waxuñu loolu farine de poisson kooku ko dégg yaa dem wax ko fële wante ñun du ñuy jaayil yoo xamee ne xamuñu lu ñu war a wax. ministre bi daf ne mu ngi toog ñu ngi seet ñun feexi fan ñun déglu si situation bi nan la. bu fekkee man la nekk fi ñu yóbbu ko faneen. mais li am ba des bi mooy que ni fii Mbour dara xewu fi lu waroon. tax ñaari baat jóg parce que li fi état di bëgg a def acteurs yi seen bopp ñoo ko sàkk woon requête yi am na ku ko wax sànq ñoom ñoo ko ñoo ko njëkk a def donc sàkk boo sàkkoo benn investissement état ba mu fexe ba dem ba am lu mu la ko defarale xam nga ci yoon coow waru fa am fii nag investissement bi mooy ni dañu dem ci askan bi wax leen loo xam ne dëppoowul ak li ñu fas yéene def parce que wax nañ leen dañu fay def ay euh, usine boo xam ne day wol ay jën loolu dëppoowul ak projet bi quai de pêche lañ fay def defuñu fa leneen ñaaree bi dañu ne faj place bi ñu jël bugguñu ko ñoom bëgg nañ projet waaye dañu bëgg ñu toxal ko parce que place bi arrangé wu leen parce que place boobu mooy aar seeni gaal ñu fàttali ni gaal yi ne ci géej gi ñuy yi ñuy ci géej gi kenn euh, projet bi du tax ñu jóge fa benn gaal yi ñuy indi ci tefes bi projet bi defaral na len benen terrain bu gëna a fi ñu nekk actuellement té waxuma la fu soré de dañoo takhalo kon déplacer wuñ len pour ñu gëna am surface bu gëna a mën fa tek seen i technicien yi lima ma leen wax moy que ni bu naré yak seen outil de travail anduma ci ñu jox ma assurance ni au contraire fofu day préserver seen outil de travail donc li ñu amone ci argument yi pour bañ ko amul moo taxit bi may ñëw fi pour man dama ñaan bu ñu waxtané rek. dañ mbir mi day féete boor sànq mënoon naa dem ci mbooloo mi waaye dama leen ne bëgguma dem ci mbooloo di jox dëgg benn kilifa di ko xañ beneen kilifa. parce que loolu taxumaa jóg loolu doo nga tax dew ma foofu du beneen question man leen yéen ñi njaboote ñëpp dem leen ngeen waxtaan ñoom wax leen dëgg gi parce que bu ngeen ko waxul ñun danañu wax dëgg gi dëgg gi mooy que ni ay acteurs la yoo xam ne seen i intérêt bopp ñoo instrumentaliser ay nit sol seen bopp loo xam ne dëppoo la dëgg gi pour mën a gàkkal yëf bi loolu nag bu amee ñun état ñaari mbir la terrain bi ñu koy def du titre foncier jàmbur terrain wu état la la force reste à la bu ñu neexee ñu def ko fa waaye man dama ne mais taxawaay boobu man am naa lu lu lu gën a jàmp pour man parce que li ñuy def bi am na ñu bëri ñu taxaw soxla ko bu ko waa Mbour soxla ñu danaa proposer waxuma ne may dogal de danaa proposer parce que maire bi moom boobu ba léegi àndu ci président conseil euh, départemental itam àndu ci acteurs yi seen bopp boo waxee ñu ne ànduñ ci waaye nag ñun lu ñuy am loo xam ne lebaluñ la ko don la pour régler sa problème nga seetaan ko fa ba ñàkk ko mhm. loolu aussi yenul maanaam balaa ñu koy nàkk nag ñu jël ko jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a yelloo projet bu mel ni def nañ ko ci gox yu bëre fii la ak Joal dangeen ngeen dégg coow Joal Joal amul coow mhm. parce que intérêt la waa Joal bu ñu leen newoon dañ fay def usine ñu xeex ko ñoom ñi sax léegi ba ñuy wax dañ naan usine waaye du usine quai de pêche lañ fay tabax kon daal mbir mi ci gàttal loolu la mooy que ni am na ñoo xam ne dem nañ ci askan bi wax leen loo xam ne dëppoowul ak li am ñun danañ fexe ba askan bi xam ni lii lañ fa fas yéene def waaye ci euh, diir bu gàtt man danañ jël décision bu dee projet bi ko toxal jox ko ñeneen ñu ko gën a yellool ah, mbuur travaux yi du loolu projet bi li ma ñaan préfet mooy mu mu mu def frein dakkal xëy na euh, opération yi ma doon mëne parce que préfet it yoon la fi nekkal maanaam bu état demee ba décider lii di projet état lii di projet Mademba du projet Massamba projet état la état di def projet am ci suuf soo xam ne moo ko moomal boppam préfet am na waxaan bu fa tolloo ci waxtaan parce que gis naa waxtaan yi mais projet bi ñaari at la ama ah. ñi naan ay problème d'information ça fait ñaari at nit ñi di ci wax di ci dox ba mu sotti léegi le préfet bobu tay mais day ar entreprise bi dafa wara def liggéey bi lolou la doon def dam leen di ñaan ñu xaar parce que ñun ñu pour dal ci nit li ñu jóg mooy pour défaral ay nit mais ñoñu il faut ñu comprendre lan la ñu wax leen dëgg gi man amna yaakar ni ndaw ñi yëngu fi ak askan bi fi yëngu bu ñu xamé dëgg gi ah ragal na ñu méré ño xamné ño ñoo leen dugal ci guute loolu danañ ko saytu ci walu information parce que li ma leen mala a ni mooy ñi ci doon jàppanteeg policier ñu ci bëre laalewuñu ak napp hmm. laalewuñu ak napp hmm. am na ñoo xam ne jëlewul nañ fi fii ni ñuy xeex pour jële leen fi parce que seen taxawaay la ñu mënul nangu ci ab dëkk ak ñu ñu jële ci yeneen bërëb ñooñ ñëpp ci rax c'est que nag da ngeen di xaw a néewal doole état ci seen xalaat waaye état li ko ëmp bëriwul kon ñooñu bu dee ci yooyu la bu ñu kenn ñaan ay njégal parce que la lente ci il faut assumer sa responsabilité